jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 mbokk yi ñu dellu am mbégte nuyu leen bu baax a baax yéen sunu mbokk auditeurs yi ak sunu mbokku auditrices yi mbokk yi ñu dellu si seen émission pencum réew mi euh, muy am euh, samedi bu jot bu 15 heures jotee jàpp 16 heures maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di si ànd ak Abdou Khadre du Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi nag tey ci samedi ji ñu invité Ali Mouhamed Sega kamara Euh, moom nag mun nekk consultant indépendant ci lu jëm ci wàllum sécurité alimentaire moo nekk tamit euh, njiitul euh, parti bii nga xam ne moo tudd MPC di mouvement pour le parti de la construction moom la ñu invité tey jàngalekat la aussi nekkoon na fi tamit ay jamono secrétaire exécutif bu conseil national de sécurité alimentaire nekk na fi conseil ay premier ministre yu bare bare bari Euh, xam naa dinañu di gën a dikk ci présentation bi ci biir euh, émission bi euh, Ali Mouhamed Sega kamara am nañ mbégte bu baax a baax nuyu la dalal la ci réew mi FM. sëñ Cheikh ma gën a am mbégte vraiment ñëw waxtaan ak yéen di leen gërëm di leen sant di gërëm kilifa rajo bi ak yéen mi nga xamante ni yéenay liggéeykat yi fii te di gërëm ñi déglukat yi. mi FM. Euh, ndaxte rajo bu am solo la. Euh, man mën naa ko seddee ndaxte danaa ko déglu. te liñ fi def nag am na solo trop. jërëjëf jërëjëf euh, Ali Mohamed Sega Camara yow yaa taxawal parti bii di MPC nga nekk consultant indépendant ci lu jëm ci wàllum sécurité alimentaire xam naa ne ci biir émission bi dinañu waxtaanee lu jëm ci wàllum autosuffisance alimentaire. Euh, comme yow euh, sa xel màcc na jëm ci wàll woowu waaye dinañu waxtaanee tamit li nga xam ne mooy rapportu Cour des comptes ndax Cour des comptes dafa génne benn rapport ci xaalis bi nga xam ne tey moom lañ loon mbirum coronavirus waaye rapport bi wane ay ndëngate yoo xam ne ministère yu baree baree bari nemmeeku nañ ko fa ba ñenn ñi sax di sàkku ñu euh, ubbi ci ab ab enquête dinañu ci dikk dinañu wax tamit ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum ñetteelu mandat euh, bu euh, ñetteelu candidature Macky bi nga xam ne ñoo ngi koy laam-laame te ñenn ñi jàpp ne euh, man naa indi yëngu ci réew mi dinañu waxtaane tamit assemblée nationale ak lu jëm ci motion de censure bi nga xamante ni fan yi ñu génn dégg ngeen yeewi def ko nam jàllul ak déclaration politique général bu Amadou Ba dinañu wax tamit ci gestion réewum Sénégal ak li dese président Macky waaye tamit euh, parti bi di mouvement pour le parti de la construction te Ali euh, Mohamed Sega Camara jiite ko danañu si wax léegi ñu njëkkee ci li nga xam ne tey moom la ñu bari di waxtaane muy rapport cour des comptes rapport cour des comptes dafa génn def enquête ci xaalis bi ñu jagleeloon mbirum coronavirus waaye euh, monsieur Camara ñu gis ne bëri na ay surfacturation ay ndëngte yoo xam ne Euh, cour des comptes signalé na ko si yow ban appréciation moom nga ci am waaw ginnaaw euh, sant yàlla te julli ci yonent bi tedd gi sallallahu alayhi wa sallam euh, may yëkkati kàddu gi nag di wax ni bettuma ah bon bettuma ndaxte jamono ji nga xamante ni ñu ngi sos mbir mi di wax ni dinañu jël mille milliards ci sunu koppar Euh, jagle ko ci wàllum mbirum ko mbas mi euh, la ma njëkk a wax sax sama xel dafa njëkk tey ci loolu te ci jamono jooju na biñ demoon bay jënd ay dund di ko nar a ci biir réew mi euh, mu amoon ay journalistes yi ma laajoon sama xalaat ci mbir mi ma ne leen sama xel dafa tey ci loolu ku yëkk ci neuf milliards nga ne dañ koy jënd cent mille tonnes ci dund war ko yóbbul ci biir ci biir réew mi ca nga xamante ni jamono jooju euh, tonu ceeb mu ngi doon jar deux cent euh, soixante mille yaa ngi may dégg cent mille tonnes nag mm-hmm. soo ko jëlee nga multiplier ko par deux cent soixante mm-hmm. xam nga ñaat lay joxe mm-hmm. mooy ñaata vingt six milliards. vingt six milliards vingt six milliards. Mm-hmm. ñoom ñu ne soo ko yóbbu trente neuf milliards lañ ci joxe. mais dégg ñu ne dañ koy transporter ci un milliard cinq cent millions. Mm-hmm. dafa mel ni Sénégal cat ba cat mën na passé junni kilomètre te fekk amul. ok ba cat. Mm-hmm. donc xam nga loolu. Euh, dafa yenwul maanaa euh, nga wax waa réew sa waa réew nga wax leen ni euh, mbas moo fi am euh, dama leen di tëj ci seeni biir kër kenn du génn kenn du dem liggéey kenn du def leneen nga war a jàppale ñooñu te damay rappeler ni jamono jooju Sénégal mi ngi toll ci maanaam borom euh, borom kër boo boo ko xaymaa daal borom kër boo euh, bu ne euh, ci Sénégal mu ngi toll ci à peu près ay seize millions. Mm-hmm. nga naa di yëkkati nga ne un million borom kër ngay jàppale. Mm-hmm. nga ne ñooñu ñoo gën a néew doole. Mm-hmm. te ñu gis ni que loolu àggul ci ñoom. léegi trente neuf milliards yi su ma ko jëlee ci wàllum dund gi rek. trente neuf milliards yi fan la dugg. maa ngi la jóge xayma. bu fekkente ne cent mille la boo ko jëndee ci biir Sénégal waxuma la nga jënd ko ci bitim réew. nga jëndoon ko ci biir Sénégal. te nga xamante ni jamono jooju sax stock yi dafa xawoon manqué. loolu day wone ni affaire yu jublan kese moo ci nekkoon. ci loolu rek lañu jublu woon. te alerté woon nga si. alerté woon naa ci. te dama ne woon sax. lii nga xamante ne ñu ngi koy bëgg a jënd ji dunt gi te ñu ko yónnee nit ñi ci seeni téléphone jaaykat yi nga xamante ni ñoo nekk ci gox ya fu ceeb bi war a dem dawlin bi fu mu war a dem suukar bi fu mu war a dem am na ñu fay jaay. ñooñu balaa ngay tëj seen boutique nga may nit ñi jox nit ñi seen seen seen xaalis ci seeni téléphone bu nu jëlee daal di wecceeku ñu dem ca boutique ba jënd boutique booba day dox. moom it du yëg mbas mi noonu boroom kër yi du ñu dem di rang. bay indi léegi soo jëlee ci yeneen ministère yi nga xam ni vraiment mbir mi dafa jéggi dayoo ku liir rapport bi rek. yaram daw non seulement sa yaram day daw mais dangay xam ne ñii nga xamante ne ñoo jiitee réew mi amuñu benn yërmande benn. amuñu benn yërmande ndaxte nit soo ko soo ko soo ko ne ràpp ci biir këram ne doo génn nga jël alalam duwul ko sa poos xam nga loolu amul benn façon nuñ ko mënee tuddee nuñ ko dudul sàcc ak ñàkk yërmande mais mais mais mais gis nañ euh, maa ngi liir benn reportage tey ñenn ci askan wi ñaawlu nañ ko ba sàkku mbir mu ñu yóbbu ko fi mbaxana doone benn mais Ali Mohamed Sega Camara dañu gis ne impinité bi am ci réew mi rapport yàgg na jam baaraamu tuuma ñi ànd ak président Macky Sall waaye dañu leen di jël jox leen yeneen i ndombay tànk yu gën a kawe rapport bii nag ñu bari ñoo ngi sàkku yoon def ci liggéeyam est-ce que jàpp nga ne bii moom euh, dinañu leen topp. Euh, dana ma jaaxal. ñu topp leen. ñu topp leen. Hmm. dana ma jaaxal. nat dana ma bett bu amee dana ma bett euh, xam nga am na 2012 3 avril 2012 Macky Sall dafa de woon ci biir premier discours am dafa ne képp ku luubal walla képp ku sàcc alal réew mi du la faral yoonam nekkul ci yow mais ba mu paree ci discours boobu ñama seqal ay mbir ca li ma dégg da leen dajale ne leen affaire bi saa daal man li ma war a wax loolu laa wax waaye nag na ngeen xam ni alal bi nag bu dee la lu mu tekki. waaw ak donc ku ne na nga dàgg rek nga yóbbu lu la neex. kon yaakaaroo yow bii même forum ah. civil même forum civil ñoo ngi sàkku justice ay poursuite kon yow jàppoo ne dana ci am. ñu ñu ci bare ñu gën a dëng ci biir réew mi ñu ci gën ñu ci gën a bare ci justice boobu lañ nekk parce que duñu àttee dëgg waxuma nag juge yëpp noonu lañ mel ndax xam naa ay juge yi nga xamee dañoo jub xoj ba tax na ni dañ leen di dàq ci centre d'intérêt yi waaye nañ ci bare dañoo dëng tàmbalee ko ci cour constitutionnelle wàcc ci yaa ngi may dégg ñaareel bi mooy que comme moom moo fi ne te nee na am na dossier yu bare nga xamee ne daf cee teg teg pour pourquoi kilifa réew war a teg concam ci ay dossiers yi nga xamante ne luubal rek a ci nekk loolu nga war a mën a xam ni moo lay won ni euh, dossiers yi su demee ba fu mbaxana doonee benn dana ma jaaxal. Mhm. te dina ma bett trop. mais impunité boobu lan moo ko waral. ndaxte waa ji ci boppam moo jubut dafa amul yërmande ci sénégalais. moom Macky Sall amul yërmande ci sénégalais amul euh, nu mu tudd ci. Euh, non considération ci boppam sax daf ko amul ci sénégalais. Hmm. ndax nit xam la dama ko xam. Ah, am na li nga xamante ni yenn sax du ma ci ñëw ndaxte da boo daf de dafa tuuti torop nit ku sew la te nit nag mhm. bu sewee rek mbiram yëpp noonu lay mën a mel mais li muy wane ak li muy jëf est-ce que nekk na benn est-ce que sax li muy wane sax noonu am na maanaa li muy jëf am jëf moo am maanaa parce que lu tax xam nga nit ki du ci jëfin nga ko du ci euh, euh, euh, li muy wax nga nga nga nga koy jàppee da nga da li ci li mu jëf ndax nit tu luubal na ñu ne la dossier maa ngi nii kii luubal na nga xool ko ne ko xam nga ni lii nga def waaw léegi nag li ma soxla ci yow loolu nga may defal ci diggante bi dinaa ci teg sama conc xam nga loolu baaxul. kon da jàpp nañu ñu bari dañ téye ci point. mais ci ay point la parce que euh, président bi téye bi teg concom ci say dossier lu lu ko neex loolu la lay def loo loolu mooy. léegi mooy mooy point yi. d'accord léegi euh, euh, Ali Mohamed Sega Camara yow lañu invité ci réew mi FM léegi Sénégal yëpp wala ñu ëpp ci Sénégal yi dañu gis ne ñi ànd ak président Macky Sall. lu ñu def dara du leen ci fekk gis nañ fi 94 Mamour Diallo OFNAC def rapport jël rapport bi jébbal ko procureur jébbal ko président Macky Sall nda wax procureur ko ñii dañu leen a war a topp ñu gis ne kooku dañ koo jël dooleel ko yóbbu ko ONAS Serigne Bassirou Gueye mi nga xam ne bi mu nekk procureur ñu bari ŋàññi nañ ko tey même moom bi mu nekk procureur moo classé woon cent dossier 94 euh, milliards yi 108 tey ñu jël ko yóbbu ko OFNAC boobu Euh, ku ci mel ni tey Cheikh Omar Anne bi muy jiite kuddu OFNAC épinglé na ko ñu jël ko dénkoon ko enseignement supérieur léegi lañ ko dénk enseignement national euh, ak yeneen kaa yu bëree bëri léegi sénégalais sénégalais yi léegi ban jugement de valeur la ñu war a am ban taxawaay la sénégalais yi war a am vis-à-vis ak ñii ñu dénk réew mi. taxawaay bu ñu ci mën a am mooy que dañu war a taxaw temb ñu gox ci loo ko. comment. am na ay pexe yu bari. xam nga pression euh, am na organisation yi nga xamante ni euh, mën nañu jël dossier yi parti politique mën nañoo booloo ñu wuti ji ay chancellerie yi maanaam ambassade yi leen lii nga xamante ni seeni réew joxe na ko ci wàll wa euh, jàppale Sénégal ci wàllu mbas mi alal boobu mi ngi nii nii lañ ko defee ñoo ñooñu war nañ ko yéeg xam naa ne yéeg nañ ko mais sénégalais mën nañu parti politique mën nañ ko def ONG yi mën nañ ko def société civile mën nañ ko def. sur le plan politique. sur politique pression la ñu war a def assemblée bi am na quatre-vingts députés yi nga xamante ni bokkuñu ci. ci ci benn bokk yaakaar nañu jël parce que assemblée dafa nekk. Euh, kuréel bi nga xamante ne mën na jël ay inici ay ay ay ay initiative loi moom la ñuy wax proposition de loi nañu jël loi nañu dugal loi mu am député bu bu koy tuddee boppam ñu jël loi boobu posé ko ñu xool ndax euh, majorité bi dina ko wote wala du ko wote suñ ko woteewul nga xam ni sénégalais mën nañu xam ni que ñii torxal sénégalais rek lañ fa nekkee ak seeni poche nekkuñu fi pour askan wi su booba mbir mi dafay ne da ngay dafay fangaaral. Mhm. day leer nañ. te ñëpp dinañ xam ni vraiment kii président Macky Sall amul lu mu fi nekkee lu dul euh, luubal alalu réew mi ak nit ñam yi waa këram la ak ñi ma ànd ma wax la leen mhm. mu amoon ki ma mosoon a wax ni mu am président bi nga xamante ni pour mu nommer la ci yenn poste ministère yi deux cent millions la lay laaj kuy laaj ministre deux cent millions. pour ñu nomee la kooku bu toogee nu muy def nga xam ni yaa ko yónni benn ñaareel bi nga nommé ay directeurs générau nga ne ko ñu cotiser cinq cent mille francs weer bu ne ci sa biir parti fu mu koy jële yaa ko yónni pour mu luubal non loolu bu amee ci biir réew mi nga xam ne kilifa googule vraiment toogul pour réew waa réew mi. mais Benno Bokk Yaakaar partie yi bokk ci Benno Bokk Yaakaar maa ngi dégg ñu ne chaque fin de mois am na lu ñu leen di jox. yéegoon naa lu mel noonu. ah doon nga ko dégg. doon naa ko dégg. masuma ci teg bët. ndax buñ koy def euh, xam nga loolu même jamono euh, président Abdoulaye Wade loolu moo boole woon Landing Savané ak euh, euh, ak Idrissa Seck euh, rax ci dolli premier ministre bi Souleymane Ndéné Ndiaye waxoon lu mel noonu donc loolu moo continuer weer bu ne ñu yëkkati trente millions jox benn kilifa parti ñi nga xamante ni moom nga foog yaakaar nga ni vraiment bu àndeek yow baax na nga jàppale ko ci loolu mais yaa ngi koy jàppale ci loolu ci kaw ci kaw lan d'accord xam nga am na déjà statut opposition. mu mhm. ngi ci biir constitution loolu boo paree mën nañ ci ñëw. d'accord dinañ ci euh, dikk mais euh, est-ce que président Macky Sall fii la ko Sénégal wala est-ce que fii la ko Sénégal yi doon xaar biñ koy fal jël ñoo xam ne jiiñ nañ leen sàcc ñuy gën a yokk seen ndombay tànk xiifal askan wi est-ce que fii la ko Sénégal yi doon xaar. Euh, dafa bett Sénégalais yi. Euh, façon bi nga xamante ni dafa ñaaw trop kenn xaaru ko fii tàmbalee ko ci man ma wax la ni 2011 bi nga xamante ni yónnee na ma ci dem ci yàlla alin Alioune Badara Cissé pour ma mën a waxtaan ak moom ñu mën a bokk ànd wuti nguur gi ma nuy waxtaan dama ko ne nañ ko tënk ci kayit am na yenn yi nga xamante ni bu mu am ci sa gestion mu ngi ci biir kayit bi protocole lañ koy woowe am na li nga xamante ni loolu lañ war a def ci biir réew mi ndax yenn yi mu dàkk yooyu yëpp ñu ngi ci biir protocole bi. waaw ah, kon yow àndoon nga ak président Macky Sall. 2011 bi ñu ko kiiyee ñun ñoo ko njëkk a tab ñun ñoo taxawal Macky 2012. mille ah, ok. bañ ko taxawale ba ma gisee ni nga xamante ne moom la doon jëfee ca laa commencé génn ci rajo yi ak télé yi. di ko dénoncé di ŋañ yooyu. ŋañ yooyu nag. moo tax ñu moo tax neexu ko. mu dàq la. ginnaaw loolu am na yenn yi nga xamante ne daf daf ko santoon ay ministre mi pour ñu jege ma. la euh, ñaan ma ma defal leen lu mel noonu ci ma bañ. xam nga boo ci wàllu mbéy mi par exemple. nga nga xayma mbéy mi te fekk ne ni nga koy xaymaa nekkul ak li nga xamante ne moo am. mooy dëgg manipule ay chiffres. manipuler ay chiffres falsifier ay chiffres. yooyu yëpp dama leen neen man defuma ko dugguma ci tey dugguma ci ëllëg. parce que boo ci duggee rek dootoo génnati ëllëg loo bëgg def ci lu jub ñu naan la xanaa dëmb dëmb barke dëmb njaay wala dëmb yaa yaa fi defoon li kon loolu bokk na mais euh, bokk na ci am na lu bari li nga xamante ne moo tax ñu lu bari lii rek laa leen ci wax. <laughs> jërëjëf euh, mbokk yi kooku ni Ali Mohamed euh, Sega Camara ndax moom nag consultant indépendant la ci lu jëm ci sécurité alimentaire alimentaire ak lu soxal wàllum résilience léegi Ali Mohamed Sega Camara. Euh, sànq yaa ngi doon wax il faut ñu dem assemblée nationale dina ñëw ci dund gi aussi mais euh, point bu bala ñu koy fàtte lu jëm ci euh, chef de l'opposition lan nga ci bëggoon wax ak tey bu doon chef de l'opposition am na ci Sénégal kan la. xam nga sëñ Seck constitution moo bind te ci kilifteefu Macky Sall mi. Hmm. ni opposition dafa am chef. te arrangement institutionnel la lu tax ñu def ko dañu bëggoon opposition ak majorité ñu am nu ñu manee waxtaan mbirum réew mi mu bañ a nekk li nga xamante ne dañuy poñante rek ba loxo wow ci ci mbubb yi yaa may dégg dañu bëggoon a créer passerelle bi nga xamante ne dinañ mën a waxtaan dinañ mën a gisante di waxtaan ci mbirum réew mi su waxtaan bu civilisé bi nga xamante ni du indi fitna waaw buñ demee ci élection présidentielle mu 2019 ki génn comme deuxième joxuloo ko statut opposition ñu dem nga daal di ko xëcc dugal ko sa biir nguur mu des troisième ki mu joon nekk troisième di euh, président Ousmane Sonko donc kooku bu fa nekkee te nee na la du la fekk si ci sa nguur gi te mu am dëgg mhm. ndax réew bu amul kujj baaxul mhm. donc kooku nag la ñu jël statut bi jox ko ko te gis nga ni mérito na ko. mais absolument parce que élection yi wone élection yi nga xamante ni moom la ñu mujj. ci euh, nu mu tuddati deux mille dix même deux mille vingt deux bi. Mhm. élection législative élection législative bi. Mhm. soo jëlee yeewi ak wallu mhm. wàllu vingt cinq député la am. yeewi am cinquante cinq député n'est-ce pas. waaw ah, léegi. même même même même su passé constitution bi taxawaayu Ousmane Sonko ci réew mi est-ce que jàpp nga ne war na naan mën a nekk chef de l'opposition. non xam nga mbir mi doo ko natt ci taxawaay bi. na nga koy natt ci lii nga xamante ni moom loolu la am ci wàllum élection. ok parce que démocratie euh, bi ñu am euh, buñ lay fa booy booy falu booy nekk booy ñëw nekk euh, njiitu réew foo nga jaar ci élection. donc élection boobu mooy baromètre maanaam mooy wone ni kan moo nekk ci kanamu ñeneen ñi ginnaaw euh, ki nekk ci nguur gi moom am na lu mu am ci position donc ci kujj gi dangay xool ki nga xamante ni moo raw ñeneen yëpp nga jox ko ko te yaakaar naa ni Ousmane sonk moo jiite bu fekkente ni sax coalition la yeewi askan wi coalition la waaye nag bi mu nekkoon ci euh, euh, élection présidentielle bu deux mille dix neuf moom en tant que candidat waroon na waroon nañ ko mën a jox bi mi nga xamante ni deuxième bi di Idrissa Seck dugg na ci nguuru Macky donc poste bi posture bi ci Ousmane sonk la mujj des te élection de deux mille vingt deux yi bu local yi. comme bu législative yi wane na ni effectivement fësal na position donc lii nga xamante ni tey jii moo nekk xëcco bi nekk diggante nguur gi ak opposition boo gisee ni amul amul waxtaan te non seulement Macky bëggul waxtaan parce que moom lu mu xam mooy que maa fi nekk donc lu ma neex lay doxal mhm. ñeneen ni faalewu ma leen maa yore doole gi ndax armée bi police bi ak gendarmerie bi yëpp maa ko yore. lu ma neex loolu lay doxal. te loolu joxuñu ko loolu pour vraiment ngay. sànq waa euh, waa réew mi wala di noot euh, askan wi joxuñu la ko pour loolu. dañ leen ne kaaraange askan wi ak kaaraange réew mi. te te Sonko ak ñu mel ñoom am nañu sañ-sañ opposé. mais non sa man mii sama jëmm bopp ci opposition laa bokk ndax bokk ma ci góor gi. bokkuma ci benn yoon ci ci boîte bi ba ma génnee foofu booba ak léegi. pare nga ci non pare naa ci lu leer nañ la. 2019 yónnee nañ ma fi Ablaye Balde pour taxañ ma ndax ma mën a bokk ci seen mbir la ma mënoon def ak Ablaye Balde def naa ko ak moom pare naa ci bi ma ci paree rek ci la rax samay samay ndab nekk ci leneen di doxal sama parti bi di doxal samay soxla di. déglu askan wi di leen nemmeeku mais en même temps di seet nu mu mën a def pour que ñu mën a génnee maanaam biif nguur gi ci ay loxo Macky Sall. ndaxte sénégalais dañu sonn. kon da nga yaakaar ne biif fa koy génne ci loxo. moom rek moo ko mën a def biif rek bu mënulee demal boppam mu bàyyi nguur gi am jom def ko bàyyi nguur gi bu ko mënulee def biif. rek moom la ñu mën a def. d'accord léegi. Euh, duñu yàlla nag. Mhm. duñu yàlla nag ndaxte yàlla moo koy wax naal moom day biif. nguur gi dinañ ñëw si euh, dinañ ñëw si troisième mandat bi juste rek. mais Ousmane Sonko moomu ak euh, mbirum Adji Sarr mi ñu koy tuumaal ñenn ñi jàpp ne état def ko bëgg a indil ay jafe-jafe ñu bari di joxe kaaw xalifa Sall ak Karim Wade yow lan nga si gis. waaw xam nga man lii ma jot a ci ay documents. ñi nga xamante ni moo nekkoon seeni mbir ci wàllum yoon ak lama ma waxtaanee ak ay kàngam ci nguur gi comme ci euh, ci ci ci biir réew mi xam nañ ni ba may wax kàngam damay wax ay moom lay wax la ma ci gis dafa wone ni daara luñ koy tuumal amul am na daara amul. dara amu ci dara amu complot la. complot rek lay mën a nekk léegi xam nga bu fekkente ni mbir mi dafa nekkoon lu luñ ko tuumal dafa nekkoon lu lu lu lu lu lu lu lu dëgër. Mhm. lu am maanaa. Mhm. lu am solo. te mu mu mu nekk li nga xamante ni def na ko. sëñ Seck mbir mi du doon yàgg nii de benn ñaareel bi juge bi nga xamante ne mi ngi tijji ay bunt di woo ñeneen di leen di laaj ci mbir mi dafay wone ni dafa am ramification maanaam dafa bàyyi ay ay loxo di law kon loolu dalay won ni que Ousmane dafa dugg ci complot bi nga xamante ni foogu ko woon ni loolu président réew dana wàcc ba foofu maanaam dina tuuti sew ba foofu malheureusement waa ji ñu am ku sew la amul lenn li nga xamante ni bu amee mu ne leen bàyyi leen tegal leen ma lii ci suuf du ko def. waaw loolu la Ousmane sonk wax nee na euh, président Macky Sall bi mu jotee rapport interne bu mbari dafa waroon woo ministre wala procureur na ko teg leen ko ci suuf. mais boo xamee ni lii nga xamante ne moo ci nekk yéenuwul benn maanaa sampul kër te fitna rek lay mën a andi ci biir réew mi mais loo ciy dox kilifa laa wax de kilifa laa wax ndax rapport yëpp wone nañ ak ñi nga xamante ne ñoo bind rapport yi wax nañu ni ñoom jël nañu jël nañu rapport vraiment jox ko président ci li ñuy liir ci presse bi. waaw ah non capitaine Touré nee na enquête interne am na. Euh, euh, déglu nañ tamit docteur Alfousseyni Gaye bi def euh, rapport médical bi. donc loolu yëpp ak rapport yi nga xamante ne moo génn maanaam audition bi fi mu jaar yëpp ndaxte document yooyu fuité na. Mm-hmm. ba nit ñi jote ci jot ci biñ ci jotee nag. kooku ko liir nga xam ne vraiment fii ëmb sagar la rek. waaw même euh, am na ku ñaan Baye Mbaye MC sax jox na maam ka ay ojo yoo xam ne ay Mamour Diallo ak ñeneen ak ñeneen euh, Adji Sarr tudd na leen ci te loolu aussi euh, image su Sénégal lay yàq. mais ginnaaw na yàq image su Sénégal mais président Macky Sall ci boppam nan lay sentir tey boppam dem na bitim réew ñu laaj ko. ma naan loolu ay affaires yu sew sewaan la nga xamante ne moom du ci du ci dugg nga xam ni lii nga xamante ni say ministre ñoo ci dugg nga ne yow bokkoo ci say directeurs généraux ñoo ci dugg nga ne say affaire nekku ci sa sa yoon nekku ci maanaam euh, duggoo ci d'accord loolu ba est-ce que xel mën na koo jàpp. day na waar jërëjëf jërëjëf euh, Ali Mohamed euh, Seeg euh, Camara léegi aussi balay troisième mandat bi gis nañ fan yi la ñu jàpp Pape Alé Niang ba bàyyi ko ci lu ñu doon wax ay lu maanaam ay lu confidentiel gisoon nañ tamit ñaari ñaari militaires yoo xam ne wala ñaari gendarme yoo xam ne kenn ki gis nañ ko di Fulbert Samb di Didier Badji ba léegi. gisaguñu ko ñaari cas yooyu am ñoo xam ne seen xel tey na ci ak presse bi nga xam ne gis nañ ne président Macky Sall da di jéem a noot ndax waxoon na fi ne du tëj journaliste ci délit de presse gis nañ ni mu def Pape Alé ñaari sujet yooyu ban jàngat nga ci am waaw d'abord ci kaw Pape Alé euh, benn Pape Alé deful benn délit de presse man sañ naa ko wax parce que du de presse deful lu tax ñu war ko jàpp non deful lu tax man mi nga xamante ne nekkoon naa ci nguur gi ci pàcc bi nga xamante ne dafa kawaay trop parce que ci cabinet premier ministre laa nekkoon ma nekkoon secrétaire exécutif document bi nga xamante ne bu fekkente ne secret la dañ ciy tampon secret bu dee confidentiel la dañ ciy tamponné confidentiel yaa ngi may dégg. may dégg. bu dee top secret la classé top secret dañ ciy tamponné top secret rapportu euh, cour des comptes bi génn léegi xam nga mois d'août lañ ko defar mais ci avertissement bi dernière ligne bi dañu ne rapport bi c'est confidentiel warul warul nekk warul nekk ci ay loxo ñi ko ñi ko yellowul mais lu tax mu génn loolu beneen affaire la donc Pape Alé document yi nga xamante ni kan moo sàcc document parce que Pape Alé du gendarme Pape Alé du militaire Pape Alé du policier du agent de renseignement kan moo sàcc document ba Pape Alé jot ko moom journaliste investigation la buy gëstu mais dafa war gëstu ba am lu ko leer balaa muy wax mu amee lu ko leer nag mu won ko sénégalais ne lii moo fi xew ci réew mi mais yoon la nañu topp ki nga xamante ne moo sàcc document bi ba Pape Alé jot ko mais pourquoi ñu war a topp ki nga xamante ne moo ko fësal te nekkul moom premier bu ko xam mi nga xamante ne moo ko fësal parce que am na benn jigéenu tubaab bi ko bi ko fësal lu tax topp ñu ko lu tax interpellé wu ñu ambassade am waaw bu armement mi lu tax Ousmane Sonko nee na moom am na ay document lu tax woowuñu ko. Hmm. lu muy nuroo parce que Pape Alé li muy def arrangé wul waa ji buggul sénégalais xam fu dëgg mi nekk comme Pape nag dafa nekk ki nga xamante ne ci journaliste yi nit ñi naw nañ ko ñu koy diglu day wax ni su ma tëjee Pape te waxatul donc am na yenn yi nga xamante ni fu Ousmane Sonko euh, mën a noy donc foofu yooyu lay tëj Pape Alé ci la bokk ci la bokk loolu benn militaire yooyu. Mhm. yi nga xamante ni tey jii kenn ki gisaguñu ko keneen ki euh, dañu ne dafa lab ñooñu seeni dëkk xam naa fa dem naa fa. nee naa fa ba mu juddoo ba léegi ku fa lab mosuma ko dégg loolu di benn te na bàyyi xel ni dëkk boobu mu laal waru ko woon laal doomu dëkk boobu mu laal waru ko woon laal loolu wax am na lu bari li nga xamante ne bàyyi naa ko ci ginnaaw xel a koy màttali moom Macky Sall lay wax loolu d'accord jërëjëf euh, Ali Mohamed euh, Sega kamara léegi troisième man troisième candidature président Macky Sall observateurs yi ñu bari ci sénégalais lambda yi dañu gis ne bu président Macky Sall jéemee forcé beneenu candidature Sénégal mën naa dugg ci musiba goo xam ne danañ ci bëgg a génn mu tëñu xam nga ko am xelu mbaam yëfu mbaam lay def ku am xelu mbaam yëfu mbaam rek lay def parce que mbaam dafa dëgër bopp xelu mbaam dëgër dëgër bopp rekk ci ne te loolu nag boo nekkee kilifa dangay bëgg jàmm waaye nag seetlu nañu ne président Macky Sall ay kilifa diine ay kilifa aada yeneen i kilifa ci réew mi même ci bitim réew mu amoon li nga xamante ne xew na fi lu ci bari ñu ñaan ko mu lànk fan la njëkk a tàmbali ñun sunu aada ak si sunu caada maye nangu amul président Abdoulaye Wade dafa joxewoon fii ay oto ay kilifa ci biir réew mi ba ci kilifa diine bi mu toogee li njëkk a def mooy am na yenn kilifa yi daf leen ñàkkloo kersa ba nga xamante ni ci kaw tali yi ñiy tukki ci biir oto yooyu lañ leen arrêté génne leen ci oto bi parqué oto yi te mu nekk ay kilifa diine yooyu sedd naa ko. parce que dama passeport diplomatique. yaa ngi may dégg. Ah. passeport diplomatique d'accord naa ci. parce que du n'importe qui moo war a yore passeport diplomatique boo nekkulee diplomate waroo am passeport diplomatique. Mm-hmm. boo amulee taxawaay boobu waroo ko am. mais est-ce que passeport diplomatique yi ci nguuru Macky Sall diplomate yi rek a ko yor. waaw mais xam nga du ñoom rek ko yor ci nguuru Macky Sall du diplomate yi rek a yor yor passeport diplomatique parce que scandale bi am na fi mu am ay député yi nga xamante ne ci lañ nekk. ak ba léegi am na ay député yi nga xamante ni kenn woowu leen ci tribunal. ci justice ci ñu ngi ñooy ñooy ndey ndey mbel gi ñun xam nañ leen. ak may dégg comme justice tudd leen danaa danaa la ñàkk tudd ci émission bi mais ñun xam nañ leen ñii nga xamante ni ñoo doon organiser loolu. te ba léegi ñu ngi ci biir assemblée nationale te am fa tànk euh, euh, ndombal tànk am fa kilifteef ci biir assemblée nationale ba tey laa wax donc da xam ni. moom lu ko neex moom lay doxal. léegi su bëggee def troisième candidature. mais su bëggee def troisième candidature dëgg li ma la wax léegi sànq nee naa la dañu koy biif ci loxoom. biif biif laa wax. duñ koo xaar ci yeneen yi. koo gis ci biir opposition bi ñu ngi ciy préparé waaye société civile bi koo waxtaanal ci biir Sénégal ci biir dëkk bi sénégalais boo gis koo waxtaanal mu naan waaw dana dëgër bopp dana def lii waaye na xam moom xam na ni pare na moom ci boppam euh, nu mu tudd tuddati sondage yi nga xamante ni moom lay yëkkati ñetti weer bu ne sondage yi dañ koy wan ni sénégalais yi nangul nanguluñu la nanguluñu la mbirum man mandat doonte damay rappeler jamono ji nga xamante ne mi ngi doon euh, def référendum 2016 damaa bokkoon ci ñi taxaw ne na nit ñi bañ woote wuy bokk naa te maa ngi woon ci biir nguur gi dama ne woon très clairement parce que lii nga xamante ne moom la aligné musiba rek lañuy indil ci biir réew mi musiba kese la ñuy indil ci biir réew mi sénégalais duñ la bañal deuxième mandat mais dinañ la ne troisième mandat bëgguñu ko donc loolu ci la ko la xase nit ñi woteel référendum constitutionnel boobu lu mu ci laxas jaan boobu mu ci laxas tey jaan jooju nag moom bëgg moom la bëgg mu wala ngaan waaw mais moom 2019 avant 2019 avant élection présidentielle 2019 président Macky Sall ak Ismaïla Madior Fall mi nga xam ne dafa bokk si ñi tëgg référendum bi ak Mohamed Boun Abdallah Dionne mi nekkoon premier ministre bu senegal ñoom dañu taxawoon ne def nañu seen premier mandat benn mandat cinq ans bu leen senegal yi falaatee deux mille dix neuf benn mandat le moo leen dese bu cinq ans pare nañ ci pare nañ ci. lii président Macky Sall moo ko wax ñu ànd ak ñoom wax ko tey buñ ko tàntee def. ndax dañu gis ne réew yu bëri li ko taal mooy affaire troisième mandat. Mm-hmm. te gis nañ tey rek maa ngi lire ci presse bi que ne naa Conakry magistrat bi nga xam ne moo jiite woon conseil constitutionnel te validé woon candidature Alpha Condé Alpha Condé mm-hmm. fi ne nii dugal nañ ko ci kaso bi. Mm-hmm. te Sénégal bëgguñu Sénégal di tàkk. waaw effectivement képp ki nga xamante ne am na xel képp ki nga xamante ne bëgg na Sénégal du nangu. troisième mandat taxaw fi te yaakaar naa ne bu dee Macky Sall ci président Macky Sall dafa bëgg vraiment donc Sénégal dafa fonk sénégalais te mu mën a fonk kàddoom jaam rek moo dul fonk kàddoom. jaam rek moo dul fonk kàddoom jaam rek moo fonk kàddoom. kii nga xamante ne da ngaa fonk sa kàddu danga nekk go as gor bu dee gor la na fonk kàddoom. moom moo fi def ay déclaration nee na deux deux mille deux mille douze dañ ko fal deux mille dix neuf bu falaatee moom pare na ci waaw ñëpp dégg nañu loolu waaw gor nag ci kàddu d'accord yaa ngi may dégg mais li ma bëggoon euh, dolli ci mbir mi euh, siñ Seck c'est bu fekkente ni Macky Sall parewuloon pour nax Sénégalais yi bëgg def troisième mandat parewuloon def loolu jaruloon sax ñu dem référendum constitutionnel article yi nga xamante ni moo nekk ci constitution yooyu lañ doon réformer ci biir parlement bi taxawal ko mu jeex mu méngoo ak lii nga xamante ni moom la wax mu defuñu ko mu jeex mais defuñu loolu référendum la ñu yóbbu lax ci jaan tey jii ci lañ nekk d' accord jërëjëf euh, Ali Mohamed euh, Sega Camara léegi ñu ñëw assemblée nationale wala assemblée nationale Amadou Ba def na déclaration politique gouvernement Amadou Ba bi nee na gouvernement d' attaque et de combat est ce que gouvernement bi ak seen wax ji ñuy wax est ce que mën nañu génne Sénégal yi ci jafe-jafe yi ñuy dund fii ak 2024. waaw xam nga gouvernement bi nga xamante ne ministre yeeg député directeur généraux yeeg yooyu yëpp ay sàcckat la ñooyu ban combat lañ fiy defati. xanaa combat pour duufalaat seen poche loolu laa ci mën gis ndaxte DPG bi ma déglu te liiraat ko mu ngi def bilan bilan la ci gën a def. ak li nga xamante ni jotoon nañ ci wax te defuñu ko. yooyu la tàngalaat mu teg ko ci kaw taabal bi. même Amadou Ba. waaye nag bu fekkente ne da nga bëgg a def guvernement d'attaque pour que sénégalais mën a am seen bopp. mën a gis seen bopp ci seen i jëf gouvernemental mais lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu mel noonu munoo ko defar munoo ko def ak ay nit ñi nga xamante ni dañoo tilim mënul nekk. waaw mais même si déclaration politique générale bi dégg naa Amadou Ba wax ne dundu Sénégalais yi dafa gën a bakkane te loolu méngoowut ak li nga xam ne moo nekk ci terrain bi. waaw mais xam nga. déjà dalay li lay li la koy won mooy que bi ñu defee seen réforme sur la vie chère dund gu cher gi ku la wax ni damaa wàññi juróomi dërëm ci kilo suukar bu mokk léegi fixé naa kilo bi cinq cent vingt cinq cinq cent soixante quinze kon kooku dafa yaakaar ni kilo bi six cent francs la doon jar mhm. alors que kilo bi sept cent francs la doon jar kon xam nga kooku xamul lu sénégalais di dund. est-ce que kooku xam na ni ci marché bi kilo ñebbe mille cinq cent francs la ce que kooku xam na ni ci marché bi dugub bi kilo bi sept cent cinquante la bi nga dugub bi nga xamante ni fii lañ koy béyee jógewul bitim réew moo ëpp ceeb bi njëg ci kilo est-ce que ñooñu ñooñu gouvernement boobu xam na ni foño bi deux mille francs lay jar kilo. yàpp bi nga xamante ne moom lañ na dañ ko wàññi mais nit ñi dañ ko dañ ko fa dañ ko faalewul ci loolu ñu ngi continuer jaay seen kilo yàpp bi 4000 francs parce que ki nga xamante ne mooy jënd nagam di ko jaay yow yaa a imposer prix loo loo ko jox ci ndàmpaay pour mën a changer condition ndax mu mën a yëg ni ko vraiment moom revenu yom bi daanul tey jii boo jëlee suukar si ke doo doo boo duggee ci boutique yi doo doo am suukar bu mokk kenn jaaytu ko ndaxte commerçant yi dañ ne ñoom. waaw mais mais mais mais mais Ali Mohamed euh, Sega Camara Sénégal ñun président Macky Sall dafa waxoon autosuffisance en riz wala autosuffisance alimentaire te tey borom xam-xam yépp ingénieur agronome yu mag yépp nee nañ Sénégal waxuma la am autosuffisance alimentaire. waaye waroon na lépp lu sous région bi soxla muy jógee Sénégal ñu ko fay yóbbu yow ngay boroomu xam-xam nekk consultant indépendant ci lu jëm ci wàllum sécurité alimentaire ak wàllum résilience. Euh, sëñ Seck lii borom xam-xam yi wax loolu yëpp dëgg la waaye mbir mi ci jëf la. ci jëf. ci jëf la. ak volonté. yaa ngi may dégg man miy wax ak yow dama bind kayit. jamonoy président Abdoulaye Wade le 10 le 12 novembre 2010 laa ko joxoon kayit boobu mais yàlla def ne falwaatul nguuram mënu ko woon appliqué document boobu laa jël mais en mais jox ko président Macky Sall nekku nii lañu ñu war a mën a def pour suuf si nga xamante ni xoroma ci nekk ñu mën dindi xorom bi ci diiru ñett ba juróomi at ñu dindi suuf xorom bi si suuf si ba mu ba mu set wicc ñu mën cee béy façon moo nga xamante ne bëgg nañ koo béy mën nañ ko cee def Sénégal un million sept cent mille hectares yëpp sorom a ko jël ci suuf yi nga xamante ne trois milliards huit cent millions la xam nga nag genn wàll bi moom la xorom bi jël. Mm-hmm. beneen genn wàll bi lu koy def boo demee ci vallée fleuve Sénégal deux cent quarante mille hectares mi nga xamante ni. ma nga fa lan lañ fay béy ceeb biñ fay béy tey ji aménagement biñ fa def ak SAED aménagement boobu baaxul parce que dañu def canaux yi parallèlement ak géej euh, dex bi tey ji xorom si mooy nekk mooy nekk di dugg ci ci rizières yooyu jëm ba ci biir kër yi boo demee njawaar nga dem ci yeneen i dëkk yi nga xamante ni ci ci côté Richard tool bi ak côté Dagana di nga gis yow sa bopp kenn du la wax ni lii xorom la boo ñëwee ba ci miir bi rek nga def ci sa la sa sa baaraam mhm. def ko sa sa làmmiñ nga xam ne kii xorom lii xorom la donc suuf yooyu yëpp fu mu toll nii dina am problème mu am ay yeneen hectares cent mille hectares yi nga xamante ni culture décrue la kenn valoriser wu leen nga dem ci Anambé bi nga xamante ne moom la ñuy bàkkoo dix huit mille hectares la Anambé mais ñaa ñaata hectares lañ ñu lañ fay emblavé 3000 hectares. nguur lëmm di am emblavé mille hectares jamono ji nga xamante ne bëggoon na ma nommer foofu directeur général anam kii bi. nono euh, non non fële euh, ci euh, Sodagri mais bi mu ñëwaatee mu ne ma 3000 hectares moom la ñu war a mën a def bu ko ministre am du Benoît Sambou bi mu ma ko waxee moom ci boppam laa bind ne ko bu fekkente ni. trois mille hectare moom lay dem pour di jël ay salaire cinq millions soxlawuma ko ko ndax réew mi li ma ko proposé woon ci document bi mooy deux cent soixante mille hectares yi nga xamante ni mënoon nañ ko béy ab ceeb ak yeneen yi nga xamante ni sénégalais dañ ko soxla lii di tama tamaateeg yooyu mais ceeb bi deux cent soixante mille hectares yooyu nu mu néew néew néew parce que def nañ fii ay essais agronomique ak chinois yi ba ma nekkee ci sécurité alimentaire dem nañu ba hectare bu ne mën nañ fa am onze tonnes ci Richard Toll fii hectare bu ne onze tonnes donc soo ko jëlee sax ba dee cinq tonnes wala six tonnes nga ci mënoon a am nga multiplier ko par deux cent soixante mille hectares da gis ni. dëgg mbir mi c'est simple. mën nañu am suñu bopp ci mbir moomu la mais malheureusement nag. Mhm. Euh, Sëñ Seck c'est que réew mi ñii nga xamante ni moom ñoom lay la ñuy sant def liggéey bi. duñu mës a wax dëgg. président te bu ñu waxee dëgg président président moom musta nangu dëgg. d'accord jërëjëf euh, Ali Mohamed euh, Sega Camara léegi yow yaa jiite parti bi di MPC mouvement pour le partie de la construction construction quoi construire le Sénégal ndaxte Sénégal dafa tas. dafa tas dafa tas. donc lu tas dan koy tabax. mais parti bi est-ce que ñoo xam jafe-jafe sénégalais yi. mais xam nga man mii man mii jiite parti bi su ma lay wax jafe-jafe sénégalais yi. kon nga xam ni parti bi xam na jafe-jafe sénégalais lii moo taxoon nag ñu defaroon ay documents. di ko proposer ñi nga xamante ne ñoo yore nguur gi. aajowul sax ñun dafa mel ni proposition yi ko bàyyi. non proposition ba léegi maa ngi ci. ndaxte suñu waxtaan bi ci la. proposition yi ci la. nan lañ mënee jubbante Sénégal gi waaye nag ki nga xamante ne nag moo yore lengey bu bu mënoon nangu ñu koy xelal soxlawuñu postam soxlawuñu ay postam ndaxte génn naa foofu maa ngi tedd waaw mais ci ci ci ci coobare yàlla. waaw mais mais parti mais parti MPC il faut que moom euh, non seulement mu def ay tournée mais war na dem ci euh, coalition yi quand bokk ci. waaw xam nga bokk nañu ci ay coalition ñu génn ci ay coalition parce que am na yenn taxawaay bu bu ko coalition amee rek. te duppowul ak ñun sunu gëm-gëm. ak sunu gis-gis. nañu rocceeku dem sunu yoon. dañ leen di tàggoo nag leneen vraiment ñun mënatuñu ànd ak yéen ñu xàllal beneen yoon. ci fan ngay sukkandiku mën a ànd ak coalition. <clears throat> xam nga balaa nga ànd ak euh, ay leader ci coalition il faut que mu am lu leer lu ngeen di waxante ngeen tënk ko ci kayit benn nga xool nit ki nag vraiment mu am aspect moral. parce que looloo taxoon 2011 bi ñuy ànd ak président Macky Sall dafa nëbboon moom ay euh, jikkoom yu bon yëpp daf ko daf ko nëbboon ñëpp donc li ci nekk ñun li ñu gisoon loolu ñu yaakaaroon ne ni vraiment moom daal moo ci waroon a mën a taxaw pour que Sénégal mënoon a génn ci lu ci ci guuta lii moo taxoon ñoo ànd ak moom te dañ ko tënk ci kayit ñi mu àndaloon yëpp man kese maa am. këyit bi nga xamante ne signé na ak moom parce que tout le temps communiqué lay wax dalay wax ne nañ signé communiqué conjoint man dama ko ne communiqué conjoint andiwuma fi protocole d'accord la ñuy signé ci li nga xamante ni noonu la ñu war a mën a yore Sénégal boo faloo donc loolu bu amulee sama diggante ak nit ñi duma ànd ak yow man na sax mën nañ sax toog ñu bañ a dugg ci élection mais bu ñu ànd ak nit dañuy ànd ak yow ci lu leer nañ ci li nga xamante ne lu soxal sénégalais li sénégalais yi bëgg moom lañ lay tegal ci kaw table bi boo ko ci d'accord rek nga signé ko ensuite sa jikko na rafet. mais est-ce que gisoo sa ànd ak euh, Ousmane Sonko. waa loolu yëpp euh, militants yi responsable yi euh, ci biir parti am bi comme ci sama biir partie ñu ngi koy wax ñu ngi koy ñu ñu koy wax parce que biir am na ñoo xam. am na ñu nga xamante ni mais même député bi nga xamante ne mooy Nafi Nafi naa euh, Nafi foofa Fofana député la bi nga xamante ne nit la ki nga xamante ne sam parti la doon la la la milité ba ñu koy tàbb. waaye nag xam naa ni am na ñi nga xamante dañ ma ko <laughs> dañ dañ ko xëcc léegi. Uh-huh. vraiment euh, pour mu mu pour mu féetee ak ñoom. loolu dérangé wu ma nekkul ci côté nguur gi dérangé wu ma donc da dalay won ni Eh, te femme boobu nag député boobu moo nekk di def buzz temps yi ci assemblée. Hmm. mooy mooy làkk soose gi di donc amul benn ministère bu mu bàyyi. parce que aussi animatrice rurale la woon balaa moo nekk député et sa xam na exactement lu xew ci kaw ga donc da nga da lay won ni te simple militante la woon nii nga xamante ne ñoo nekk sax ay responsable ci biir parti bi suñu parti ñooñu euh, foo leen laaj fànn boo leen laaj danañ la ci tontu. mais est-ce que. mais léegi sunu cadre yi xam nga. ah xam nga deux mille deux mille deux mille onze. Euh, Macky Sall dafa dafa ñëwoon rek ne nit ñi ok léegi dama lu mu bëggoon vraiment ngeen jox ma listu seen cadre parti parti mais ñu ci bare jox nañ seen liste cadre seen parti mais man dama ne sama responsable bi nga xamante ne moo chargé loola dama ko ne teel sa loxo. dañ ni sa loxo. bul bul sax joxe liste boobu teg ko ci suuf parce que ba ma commencé xool nu muy doxalee ak coalition bi te fekk si trop tard pour ñun mëntuñ génn ca laa ne tegal loolu ci suuf lan la doon jublu ci mbir ñëw mi <coughs> benn non seulement dina leen ñoddi bu toogee mais ñaareel bi mën na leen xatal xatal ci biir réew mi de telle sorte que bu fekkente ni ñooñu nanguñu ànd ak moom mu xatal leen ba finalement ñooñu dañ ñuy wàcc dem seen yoon en même temps bu leen xamee da leen di fiché ñi Ali Camara la àndal am na ñi nga xamante ne ñi ngi ci wetam mel ni kawar karaw bakkan ñu ngi ci wetam samay nit lañ bokk donc dalee woon ni am na liggéey bu xóot bi nga xamante ne def nañ ko ci biir réew mi te moom bu yaakaaree ne euh, lu muy def ñun xamuñu ko xam nañ ko euh, am na li soosee di wax ni xar day sëgg rek waaye euh, tisbaar kenn gënu koo xam heure boobu d'accord jërëjëf Aliou Mouhamed Sega Camara waxtu yi jeex na ñu lay sant di la gërëm maa leen di sant di leen gërëm di leen euh, di leen euh, jox seen wàccuwaay. et euh, di nuyu auditeurs yi di nuyu kilifa yi vraiment donc di leen gërëm di leen sant bu baax a baax. jërëjëf Ali Mohamed Sega Camara mbokk yi moom la ñu invité woon tey mu nekk njiitul parti bi di MPC mouvement pour le parti de la construction moom consultant indépendant la ci lu jëm ci wàllum sécurité alimentaire ak wàllum résilience. ay jamono tamit nekkoon na fi secrétaire général secrétaire exécutif bu conseil national euh, jëm ci wàllum sécurité alimentaire nekk fi euh, conseil euh, premier ministre yu bari moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.